Sonko karaak ñëpp sànq léegi la ñuy yëg ni mujjee leen bàyyi ñu bëree ngi sant yàlla di kontaan ci bàyyi bi waaye daf ñu war a merloo ndax ku ñu jàpp ci ay reetaan lu ab ay weer tere ko mu nekk njabootam tere ko mu dem ci ay liggéeyam tere ko mu dox ay soxlaam nga jékki-jékki ci benn fan rek nga ne bàyyi naa naal demal ñibbi sa kër tappale weesuwul yi maanaam réew mi ci ay tappale képp la ñu nekk jamono juñ toll maanaam reetaan warul tax nga dugg kasu 6 mois taxaw wax ne ndax reyuñu sama frère warul tax ñu tëj nit kaso je parle de Fadilou Keita ak ñeen ak ñeen ku dul moom lii yëpp du ay raisons yu suffisantes du ay du ay causes yu sérieuses yoo la tax ñu ñu ñu xañ liberté ndax la liberté doomu aadama mais dafa dafa dafa dafa yéeme maanaam lii c'est c'est un principe c'est fondamental lii war ñu ko foowee soo gisee tey nag Sénégal ñiy foowee liberté doomu aadama yi lu ñor ak lu ñorul ñu jàpp dugal kaso lu baax ak lu bon lu lu weex ak lu ñuul c'est parce que ñi jiite Sénégal xamuñu kaso ku mel ni Macky Sall ak ay nitam yëpp mosuñu dugg kaso moo tax dañoo ragal kaso ñoom toog nañu jooy ne dee mooy leen dëggal moo leen dugg kaso li may wax nii euh, bëri na ay série yoo xam ne fekkee Macky Sall muy wax toog jooy ba bën ay bëtam ne man dee sax moom dëggal kaso yàlla mu kaso di ñaan intervention pour ñu bañ ko kooku moo jàpp tey ay nit si lu ñor lu ñorul di duggaate ay kaso donc dafa lii dafa dafa sérieux wul donc man mettitlu naa ko man rafetluwuma liberté conditionnelle ak Euh, contrôle judiciaire rek temps moom la ñu xewal ndax dégg naa Ousmane Dieng Papito Kara sax contrôle judiciaire la leen defal man mii contrôle judiciaire la ma defal Abdou Karim Gueye contrôle judiciaire Pape Alé Niang contrôle judiciaire maanaam jamono bii léegi euh, pouvoir dafa am benn trouvaille bu bees maanaam mbiri tappaleeg lu ñàkk solo dafa siy jàpp yóbbu la mandat dépôt bu la fa jàppee téye la fa diir ñeme ñu laay yóbbu procès ñu may liberté provisoire après def la contrôle judiciaire pour tënk la lii dañ ko war a ñaawlu lii c'est un lii dafay dafay déshonorer tout le Sénégal et su Macky sàll créer parti tuddee ko alliance pour la république Macky war na la république ndax république warul fonctionner nii warul fonctionner ci désir ak volonté wu benn doomu aadama bu toog di def lu ko neex di buum ak di mi di toroxalaate ak di tëjaate mel ni kuy fo maanaam jumtukaay ñu teg ci loxoom dafa rëy lool pour ñu koy fooyee warul nekk fookaay dañ ko jox ay jumtukaay jox ko ay institution jox ko ay ay ay ay ay force de sécurité jox ko budget jox ko lépp li nga xam ne daf ko soxla pour liggéeyal ñu pour gën ñu génnee situation bu ñu nekkee pas pour du ñu ko di ñu ko di ko sonalee pas pour di ko toroxalee askan wi maanaam mag ñi ñoon wax naan baadoola kenn waru koo jox li war a defar gor ñi ndax saa yu baadoola yore ay gànnaay rek gor yëpp dañuy am ay jafe-jafe donc Sénégal foofu la tool tey yi te lii wax dëgg yàlla dañ ko war a ñaawlu lu ñuy ñaawlu la euh, wax ci justice bi nga xam ne aujourd'hui justice ci lu ñuy wax état de droit justice mooy baas bi justice su libre ba pare diggu dóomu dafay may dafay may kaaraange ak dal ci biir réew waaye tey jii senegal fi mu toll ñëpp na maase nangu ni suñu justice tëddeewul njaaxanaay ndax condamnation bu tey bi rek bu Ousmane Sarr ak ñoom ak ñoom Bayna Gueye ak Amadou Saran ñii dañoo taxaw yuuxu libéré Pape Alé teg si Macky Sall dictateur ci ci ci peggu tali bi taxawuñu ci diggu tali bi taaluñu pëna ñu xeer saagawuñu liñ taxaw wax ci kanamu kër premier ministre ñu jàpp leen tëj leen deux mois ferme dama ne est-ce que ñun ñu ngi xalaat bu baax a baax lan mooy prison ak prison lan lay jariñ condamnation bi dama bokk si ñu gëm ni condamné ñu leen pour ñoom c'est un message fort que pouvoir est en train de lancer à tous ceux qui sont debout ñëpp ñi xam ne jug di dénoncer bëgg di exercer seen ay droits constitutionnels di exercer seen liberté d'opinion ñoom le pouvoir bëgg wax na leen attention képp ku fi yëngu ci yéen naal duma intimidation bi dama ne du yoon rafetul ce n'est pas élégant mais ça ne passera ndax dëkk bii nag il faut ñi yor réew mi te ñu dénk leen ko moomuñu ko du seen ndono ay waajur du seen ndono ay maam lañ ko dénk pour ñu liggéeyal ñu il faut ñoom ñu comprendre ni mënuñoo napp waa Sénégal yëpp te mënuñoo tere doomu aadama yi wax seeni xalaat ci li xew ci réew mi lii réew mu ñëpp bokk mun ñu si beddi kenn ci wax xalaatam te incha allah fi des di wax suy xalaat ci réew mi di wax suy xalaat ci lépp lu mën a jëmale kanam réew mi ci yar ak ci teggin waaye mënuñu xoxatal wax dëgg yàlla donc lu ñuy méttitu la condamnation bi recul la pour Sénégal may fàttali dafa am benn euh, benn structure bu ñuy wax the economist intelligence unit maanaam euh, economist intelligence benn benn structure la bu nekk fële ci Angleterre buy def ay saytu ak ay xayma di xool état de droit ak euh, démocratie ci àdduna bi ci étude am dafay gëstu ay dëkk yu bëri maanaam 166 pays lay gëstu ci àdduna bi 166 dont 164 yëpp ils sont de l'ONU ñoom lay gëstu Euh, ci 60 indicateurs yu nekk mu jël ko xayma ko xool dëkk bi fan la toll ci démocratie su xaymaa indicateurs yëpp dafay classer dëkk yi ci quatre groupes ay démocratie complète dëkk yi bëri wu c'est une vingtaine de pays yi nga xam ne ñoom ñëpp c'est des démocraties complètes yoo xam ne nit dafa am ay àq ak yelleef dañ fa fonk doomu aadama jox ko cër nit dafa fort fort bi nga xam ne président mënu ko fagaagal ndax li jox doole président muy constitution moo joxaale doole doomu aadama doomu aadama ci woowu dëkk euh, démocratie yooyu kon bëriwuñu am deuxième groupe bu ñu woowee les démocraties incomplètes euh, lii ci une de pays yoo xam ne ci àdduna bi nga xam ne naam ñu góor góorgóorlu am na ay jafe-jafe am na yoo xam ne des na waaye ñu ngi ci yoon bi